mbokk intrant Dakar people yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ñun suñu mbokk yi ñuy suivre di ñu bàyyi xel saa su nekk rek mbégte la ñuy am suñu waree jàkkaarloog yéen ci seen bi ngeen tànn seen bopp muy Dakar people comme ni ñu koy defee rek spécial lamb tey nag ñëw ne mooy Malika si kenn koo xam ne kenn lu ci ñun yaakaar naa ne miin nga ko ci li nga xamante ne mooy Dakar people muy sëñ Mor ku ne sëñ Mor wax dëgg yàlla xam ko ci moo Lo xam ci ki nga xamante ne mooy ñaabu ndaw macha allah mu nekk koo xamante ne maanaam li muy nekk muy wàllum ñaan di la gunge ba yàlla may la ci a moom dina la gunge ñu ngi ñaanal bu baax baax jigéen ñëpp suñu borom bàyyi leen fi saxal leen fi yàggal leen fi macha allah ba lépp loo xam ne bëgg nañ ko seen njaboot gi rek suñu borom defal leen ko ndax jigéen ñi ay jàmbaar la ñu ngi sarga ñëpp ci 8 mars bi ay ñu ngi la ciy sarga laale yow sama caméra wo maan bi nee la macha allah yow jigéen jigéen ju mën góor nga ndax bu ne 8 mars yow am nga ci cër ndax da ngay xale nekk jigéen nekk jàmbaar loolu nekk ci milieu bi nga xam muy milieu làmb nga ci jaayante di ci góorgóorlu macha allah suñu borom yàlla na ci yàlla defal ndam defal la ci wërëg ak wërsëg ak sutura defal la ci gudd fan macha allah kontaan nañ ci jigéen ñëpp 8 mars bi nag moom luñ fi def ñi lañ ko mën ndax nee naa tey bisu jigéen ñi la mais ba tey di leen fàtte ñu ngi ñu ngi dalal sëñ Mor taalibe sëriñ Babacar bi dama koy nuyu jox ko mu nuyu après ñu continuer li nga xamante ni mooy waxtaan bi sëñ Mor

moom yaay yu baax la yaay yu jàmbaar la du ñuy jigéen ñëpp nag parce que jigéen Sénégal moom mention spéciale du ñuy sa caméraman bu ñaawal bi ay bu a baax di ñaan daf leen jàmm baax. Mhm. ayca merci beaucoup sëñ Mor taal bi sëriñ Babacar Sy bi na avance de. waaw Modou Lo jël na avance loolu doon ñaan yàlla ndax dañ nit ki si ngay ñaan yàlla ak avancement te Modou Lo jël na avance loolu du buzz pour man waaw Modou Lo jël avance du buzz parce que loolu mooy métier am Modou Lo làmb mooy métier am Modou amul leneen lu làmb te bu jëlee avance bu nekk coow ay ren daf may jàpp la may jaaxle. waaw mais dañu taxawee démb ñu ci dañ ne du combat Siteu Modou Lo du combat Modou Lo dafa waroon a xaar Sa Thiès mu jël ko mais boo déggee nit ñi naan Siteu ak Modou Lo du combat en tant que ah, damay faral dégg sax nit ñi naan Siteu ak Modou Lo ñoo bokk ay fans ñoo bokk ñi nga xamante ay supporters lañ ndax gis nañ combat Siteu bi passé ak de guerre euh, kii dafa ñëw ñaanal ko. Modou Lo dafa ñëw ñaanal ko combat bi tax ñu bari na lii du combat en tant que koo xam ne day ñaanal Modou Lo tey. waaw combat Siteu Modou Lo <laughs> lu ñu siy wax rek man mii rek dèjà yàlla def na dama am cofeel Siteu ndax suy bëree dama ko ñaan ñu ko jege di suma xarit ku si ni DG Seck sumay xarit lan ñu diggante guddi ak bëccëg mais Sénégal mu ni kenn du fëgg kër Modou jox Modou Lo 100 millions wala kenn du fëgg kër Siteu jox Siteu 100 millions wala 150 millions. col lu muy bari bari benn tàkkusaan la benn ngoon la ñu fàtte ko nekk leneen c'est xale la bu nekk si yoram di dem ñu wane jaloorem si lam tey mbooloo bu ma mburu mag yi amuñu ko mën na ni mbooloo bu tey moo ko indi fu mu nekk ak jomam ak fulam ak faydaam ba tax tey muy bëri muuru xel loolu du roi loolu sant la pour man parce que nag mu loolu dépassé tey fu ñu koy tànnee adversaire mooy roi des arènes moom mooy xool ku mu neex mu bëri moom xëy dafa am si Siteu yéene mm-hmm. bëgg mu bëri combat royal mm-hmm. bëgg koo may ay millions comme moom nu ko Siteu mayee mm-hmm. mais Sénégalais il faut ñu bàyyi lii combat lii du combat parce que tey bu ñu fi doon wax combat du combat boo bu ñu bëri Balla Gaye du combat ah, su dee palmarès war ñoo bëri Reug Reug Sa Thiès moo ko daan bëgg Demba Ndiaye mu dem bëri jéeg Bombardier Franc mi ngi bëri Bombardier est-ce que palmarès boole kon léegi làmb nekk palmarès parce que kon léegi lamb promoteur ñu muy xool ku leen neex combat yu ñu fay leen dem tëgg combat bi <laughs> lamb amatul morom. garab la léegi wax bu ñu tëgg garab si ko lay fekkante ku ne mën ngaa bëri ku la neex zarko bu daal amatul ay kii mais ñun si benn problème mënuloo woon wax dëgg yàlla lu mu bi ko déggee bett. waaw franchement nag bett na ma. waaw su fekkee wax naa dëgg bett na ma ndax bëgg mënu ko ma taxaw waaw bëgg mënu Modou Lo ak Siteu bëri na bëri na ay réaction yu bare bari yu tax parce que Siteu def na ay actes yu waar taxaw dëggal boppam ne Modou Lo dama koo bëgg su ma nit la su ma lépp la Modou Lo di bëri ak Balla Gaye stade Léopold benn mbër lañ fa gis muy Siteu moo ñëw Siteu ñu Modou Lo jëngal ko ànd ak moom fecc xool yëpp sedd doon ko ko Modou Lo daa daanu mooy ba ñu bëreeg Lac de Guiers Modou ñëw fay ko bor boobu xol yëpp sedd ak bokk nag fami sëy bi xas ba am seen diggante parce que deret moom su jaxasoo rek xas day daa jeex kon Modou Lo ak Siteu bëgguñu woon ñu bëre mais yàlla suñu borom moom mooy dogal ñoom ñoo ñu war a bëre dara du ñaaw dina ko seq waxante su rafet waxante su baax ba bis ba ñu ñaan suñu bëre nag Modou Lo yàlla may ko ndam ndax lu ñuy wax rek boo ñu bëree suñu waaju sax moom la ñun xamuñu joxe bopp ba pare juróot laa miin mm-hmm. donte ko Siteu am nañ si moom ci fàtte jot nañ si tamit mm-hmm. mm-hmm. ay euh, dafa jël combat boo xam Modou Lo la bëre bis bu ko dépassé ndax bëre ba bëre roi des arènes ba téye roi des arènes mënatoo bëre bis bu la dépassé mais tarkindaa bi tamit ay ruqab dafa bari boo xoolee Siteu xale la mais li ñuy faral di bi mu duggee ci làmb yàggul mais marqué na empreinte am mais Siteu ak Modou Lo boobu sànq maa ngi lay xam ne sax bëgguñu ko mais yéen nga xam yéenay ñaanal Modou Lo naka ngeen na waa ah, du ñëwee comme daan ñëwee si comme amul rek ñuy wax tey ku yàgg si njaw doo njaw ñuy bis lu ma doon si ko suuf muy sport dootuñu dépassé ndax nag fekk nañ bis bu ne engagé nañ mbër bu ne mbooloo bu ne tiim nañu kon dara duñu dépassé dara duñu yëngal mu loolu dépassé na fa ko bis dépassé ku xool mu ñëwee si làmb yu mujj yi nga xam ni champion la ndaanaan la c'est xale la fugam lu ko mën a canaliser bariwul bëreetam ñu ko mën na claniser bariwul waaye nag Modou Lo moom mooy Modou Lo comme que bi des na nañ ñaan yàlla yóbbu ñu see jàmm ak salaam yàlla may ñu su ndam te ñu ñu waxoon dem la waxat am nañu yaakaar ak yaqin ne Modou Lo si kattan yàlla lay bàyyi roi des arènes kon defuñu suñu xel ni Modou Lo day daanu daan ak daan kon ñun dépassé nañ foofu ñun li ñu gëm mooy Modou de day bàyyi wala couronne roi des arènes kon xam nga ñooñu moom defuñu seen xel combat bi mënoo des si daan wala non non ñun dépassé nañ foofu xëy na nag combat bu yeneen ñu ko ñu di analyser. Mhm. mu tax ñu si kàttan yàlla dina bàyyi roi des arènes. Mhm. information yi xam nga nit ñi moom euh, dañuy dañuy dañuy wax rek ñu ngi dégg après ñu ne peut-être Modou Lo dafa bëgg a jox euh, Siteu roi des arènes bi moo tax. <laughs> mais Modou Lo lu mu yàgg sonn yàgg see topp di 2006. Mhm. couronne roi des arènes jëral ko bàq bii coono lu muy bari bari bari. ndax bu ñu fàtte ay nawleem ñoo fi jaar di roi des arènes moom mu topp si dawaay at ñun ay ñànkaram topp si dawaay at ay sibatam topp si dawaay at mu ñëw ba jël ko nii di xaar ay muloo daa jël pour jox couronne bi Siteu loolu ay waxu caaxaan la Sénégal dañ bàyyi caaxaan muloo dépassé na fi mu jëlee couronne roi des di ko jox si pour lan tem ay raq yu gën a yooyu couronne bi ñoom fara topp si ganaam ñoom góor soog ñoom potilo ñoom garga kon lan moo tax ñi ni di xaaree làmb mënut a dépasse làmb Modou Lo ay millions lañ ko fis combat bi fay Siteu ay millions te Siteu ku ko xam-xam ne moom caaxaan te du combine Siteu dépassé na fu ñu combiner de te Modou Lo dépassé na fu ñu combiner bu bis baa dinañ si xam dara insha allah rabbi <laughs> tarkindaay waaw tarkindaay moom macha allah. moom ñoom moom borom borom bagage la wax dëgg yàlla tarkindaay moom kenn amul lu leen wax parce que nag. tey jàmm gën tamit am benn acte bu islam kooku xam bu njëkk état ak léegi état nu muy xam ne waa jàmm gën mention spéciale la mm-hmm. leen dara mm-hmm. ndax ñoom defal na lépp Siteu mm-hmm. te ay supporteru Siteu tax mbooloo boobu nag nekkul ku ne la ko yàlla di may buñ fàttali mbooloo bu muy soo a door ba bekkaay ma ne mbooloo jinne sax mu leen faral ndax mbooloo bu doon topp uh-huh. chaque jamono day benn phénomène guddi yu ñu toll nii ñëpp nangu Siteu mooy phénomène làmb ji loolu la yàlla dogg si moom loolu la yàlla na mu si moom waaye nag taxul nag mu xam ne moom it nag bisum naanam ak bis bi nag du benn waaw Modou Lo lay bëreel de billaay wallaay wataala Modou Lo lay xam ne wàjjan ñun dañ doon ñaan Siteu ndax lañ cofeel kon suñ taw kon bett nañu dara nag dañuy def li naan def dem yàlla may ndam après nekk leneen mu doo ko xam ne mu bàyyi làmb yaa ngi si erreur parce su toogee kenn du ko jox 100 millions benn nit du ñëw fekk mu loo da ngay ki ko dama ñu koo bàyyi loolu te mu loo nekk xale tool si buntu àddunaam mu loo amagul 40 ans amagul 35 ans kon daa tool si buntu àddunaam dama tax ñu bëgg ko bàyyi loolu làmb nit ñi mais lan mooy ñi du di jaamu yàlla ñi du julli ñi di woor kon ñu ko ñuy def lan la kon ñu ngi julli ñu ngi woor ngi daa yow yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi jàmmal dara nga bàyyi sa métier boo leen koy julli di woor rek bàyyi sa métier kon ñëpp bàyyi sa métier bi kon àdduna ñi Siteu dafa jëlaat beneen avance Ama Baldé ak Gris Bordeaux ci nekk vainqueur la mais dama ko mën a bañ si làmm parce que doy am egg na foofu mais maa ñu lekk Lac de Guiers rek doy na way Siteu àdduna da koy rey du mat une mu ñëw ñu lekk Lac de Guiers doy way ko jàkkaarloo moom wane ful wana jom wana ngar ba yàlla dugal li muy dugal ñu jox ko muloo amul benn problème. Euh, li li li li VIP yi di dugal day dugal moom lu ko ëpp ñoom non surtout lu muy dugal actuellement ne stade amul benn amul benn mbër ñii muloo ñii balage ñii kenn laa wax mhm. kon kay kooku yeeyoo na nag nag mérite na ay millions na bëri

ñooñu ñëpp ay kilifa ay ñànkat yu baax la ay ñànkat mag la nag ñoo nag mu toppee si ginnaaw Modou ñu tiit wala ñu ragal tuma ñeen ñi ñaan Modou Lo te si jot yu rafet deen wàcc neen waaye ko ñu Modou bisam taxaw na xaar ñu tàmbali liggéey bi te bu ñëwaatee bis boobu dina xam ne ñëw nañ ndax si te buñ fàttali ñoom yoolu tun ngemm ay kilifa yu mag ñoo ko ñaanal mm-hmm. xool ñu mu ñi xam ne yoolu ngemm gone te incha allah ba boobu ñu làmb mm-hmm. ñëw def ñu naan def incha allah. bu baax di ngeen def lu raw làmb làmb yooyu. <laughs> xel dal na si baax a baax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñu mënuloo amul benn adversaire bu muy taxawal te suñu xel du si daal. parce moom li ko war da koy def. Mm-hmm. ñuy def lu ñu war. yàlla ñëw décision am incha allah. waaw waat nañ daal. na solo macha allah nee la tey kii dala ci Dakar People muy sëñ Mor nee naa la ku ne sëñ Mor na Modou Xarañ Lo roi des arènes ku ne sëñ Mor na Massila Diop ne sëñ Cissé bu sëñ Babacar si ndax boo xoolee ñoom ñooy topp Modou Lo di ko dar ba yàlla defal ko ndam ak lu mën a xew ñooy àndaat ak moom daraat ko indi ko fi nga xamante ne mooy parcelle ak ci sëñ Mor Balla Gaye waaw saison bii moom waaw saison bii moom di yàlla moom macha allah quoi saison bi spéciale ay combat neex ñu ci am mhm. Balla Gaye ñëw pour am lu mu di dem war a bëri ji moom it combat royal ndax météo a bëri moom it combat royal te combat royal li tax mu koy bëree mooy mu daan Balla Gaye mhm. Balla Gaye tax muy jugaat dama bëri war nekkaat fu mu nekkoon si lam moom mu doon Tapha mhm. te comme que man combat boobu dama mhm. <laughs> nga xam nga comme que man sama bis léegi àdduna yëpp dañ koy xaar ah. te lu ñuy wax ku yokkul yaa wàññ te donte ko ba mu nees làmb yàggul mais fexe naa ba mu marqué sama empreinte te lam kenn mënutul wax sëriñ diw te doo moo sëñ Mor loolu dina sant yàlla baax ndax am na ñoo xam ne nekk nañ si métier 40 ans 50 ans te kenn xamul leen te bu ma defee si métier ay weer rek wala ay at suñu borom sutural ñëpp at ñëpp xam nga jar na sant yàlla kon su ma ñëwee si bis at yëpp ñi dañuy nangu ñii du nangu léegi sama bis sama koy bëgg téyel sama bopp ba bis ba rek ñi ñi gis ma maa ak mbër bi may àndal mm-hmm. wante dinaa bu mag si kàttanu yàlla bis yëpp am naa sa ay mbëru mag yu bëri. barke Seexu Tijaan kon man lu tax may tëb di dal wala métti wala may ragal. te yëpp da nga war am naa si mbër. balagay Gaye ak kii euh, Tapha am naa si mbër. Sa Thiès Eumeu Sène am naa si mbër. ñaa bu ndaw amaneex am naa si mbër. Hmm. Ada Fass guy gi am naa si mbër. léegi lan problème bi kon man. non boobu aw ah, ma sa mbër mais franc laay bëgg mu daan. parce que moo tax. ba pare sama xarit la ñoo fa woon parcelle moo tax. non nan bàyyi mu seet rek waaw nan bàyyi mu sedd parce que xam rek comme bu dafa bari te ñu bari dañuy ñaan uh-huh. su ma waxtee parce que dama bëgg di gis xam nga uh-huh. Sénégal ñoo bëgg di gis ni ku ne si kaw uh-huh. te comme ma toog naa at gis ñu mbër bu ma indi ma daan bakoroom indi ñaaw bu mu daan coole ni kur jàngal na lu bari ba sant naa suñu borom baax baax day tax su may ñaata ma xam ban anam bu may ñaatee te su ma wàccaatee arène nationale ñu xam ne wàcc naa dinaa wàccee benn façon incha allah rabi te bu mu ñaatee dina xam ne sëñ Mor ñëw na mm-hmm. mais sëñ Mor coow li bari ci sëñ Mor euh, sëñ Mor gis nañ bu ñëwee këram bëri yi dañ fiy nekk am na ñoo xamante ne nii bu leen sëñ Mor indiwul jour arène nationale bu ñu waree bëri duñu kontaan pourquoi coow li bari ci sa te pourtant que da nekk ak ñoo xamante ne say moromu maara lañ di ñaan ko yow mais ku dégg sëñ Mor sëñ Mor rek te barki Seexu te barki sëñ Babacar man sàkku ma ñaan benn mbër mm-hmm. ma ñaq ma fu la ñaq ma fay dem mm-hmm. dama woo mbër si kaay ma ñaan la te mbër bu ma fale xaalis di tamit du ma la loolu caaxaan ma ko kafe ma ko mbër yi may ñaanal mën na maa seede mbër ñoom ñooy daw wusi ma pour ma ñaanal ba pare ñoom ñooy sax pour ma ànd ak ñoom arène nationale ndax man moo ma gën fi nii parce que defatuma dara si ñaan làmb rek te yàlla su la mas billaay barke Cheikh Tidiane jot bi dëgg sax des koo am da instant si yeneen élection yi mi ñëw dina yéen mi ngi te am na yu mag yu yi may ñaanal kon man amatuma jot làmb sat naa nag suñu borom baax baax toon na ko nag làmb moo ma génnee lamb tey moo ma defal lépp lu ma am si àdduna tey muy kër muy oto muy ay soxla lépp lamb ko waral man du ma fekkee mukk fu ñuy xalabee làmb wala ñu fay xasee làmb man boog du ma ko fekkee parce que làmb moo ma defal li ma am mais nag ma ñàkk ma fay la du ma ne benn ma ñaan la mukk li ma say am na mbërëm sax xama seen tur barki seexu ci ñii mbëru ndaw ñii mbëru mag kon man sant naa yàlla baax baax baax waaw mais daal <laughs> yàlla baax na quoi waaw yàlla ba boobu rek incha allah mhm. Sénégal tamit yàlla na fa def jàmm kooku maa ngi noonu élection yi le 24 wala le 31 mars mhm. campagne di commencé dimanche mhm. yàlla nañ ko ubbee si nag kenn du ko fal kenn zalika fadlullah yuti man tasha yàlla suñu borom moom moo koy fale tey man su ma doon fal njiit wala kenn di fal njiit sa doom koy fal wala sama wala sa raq ndax am nga ku jàng ba ay itam te mënut a nekk président maire sax mënu ko nekk kon ñi ñu leen bàyyi caaxaan nguur yàlla moom mooy xool ku ko neex mu def ko si moom. Macky Sall 20 ans si ginnaaw koo yàqoon dina nekk président nga ne déedéet te yàlla moom la def mu jiitoon ñu jiitoon na bés ci pàndaw gi lépp rafet ñu koy ñaan mooy mu dem dem bu sel dem bu rafet ñu ñaan nag fi ñu bokk. Euh, def la ñu nekk président incha allah te nañ si yaakaar. maanaam ci président wala ci li ki nga xamante ni mooy jiite réew mi ndax coow li bari na indi Sonko bàyyi Macky Sall lan a xaar élection dina bett ñu bari nag. élection yi. billaay dina bett ñu bari. kii ñëpp yaakaar ne day fal du falu. ki ñëpp yaakaar ne day nekk président nekk président. Sonko day génn ci kaso bi. moom man nag mosuma dugg si jotaay yooyu noonu. ndax man damay bëgg sax lu may wax mu nekk lu leer nekk lu wóor ndax ëllëg moo tax su nga ko dee génn si kaso bi te du yàgg dara Sonko dina génn si kaso bi mhm. bokk si campagne yi barki Seexu Tijaan soo déggee dina si bokk ndax 19 candidat yi bokk si mais dina si gunge nit moom Sonko te yàlla dina doon ku muy gunge ko koy falu si kàttuñ yàlla. moo tax man la parti bi tëb di dal foog ni ñoom ñooy yorat réew mi dañuy nax seen bopp yàlla noppi na. di tëb di dal foog ñoom ñooy falu par nañ si nguur seen nguur jeex na kii ma lay wax nii. bu ko doomu adama yi voté lu sax jinne voté ko. barke sëñ Babacar Si. bu ko doomu yi voté lu ko. te mooy gañ. incha te ñu ngi si def ñaan ñu mucc ali. yi voté lu jinne voté <laughs> ko. leeral. man Pastef laa bokk. te yemuma si bokk Pastef ñi rek dama bokk si membre yi bokk si groupe boo xam ñi naan Pastef ñoo fa ne ñuy wax ak sarax ak lim ñuy jàng si kaamil kan mooy suñu ñun du Bassirou Diomaye Faye nan xib suñu bët di xool soo ñu xool ñu muy demee si kàttuñu yàlla day nekk président Sénégal ba incha allah rabbi am na sikk. loolu moom lu leer naa la. am na sikk. mais ah, si biddéew la borom ñii nga ne fii ñëpp nekk kandidat suñu biddéew daa suufee ñii Amadou Ba ñii ñoom ñoom ñëpp am na ku si tiiw biddéew Bassirou Diomaye Faye ñoom ñëpp wante woon si barance seen bidéew ñoom ñëpp ba si leen boole daaneel ndax suñu boroom dafa am ay siryoon bu koy rocc dafa am su koy roof te siru sunko dafa ànd ak siru Jomaay léegi ñaari siryoon bi suñu dajee ñaari bidéew yi ak ñaari rawaan loolu bomb lay nekk moo tax man la bu ko doom aadama yi voté sax jinne yi voteel ko si bidéo la ñuy xool parce xëccoo bidéo moo koy def ak rawaan am na ñu gars yi cooro ñoo bidéo dafa suufee am na ñu ma contacté woon ay raqam ñun si doon wax pour ay sarax mais man li may wax saa su rek man taalibe Cheikh laa man du ma wor te du ma fekkee fu ñuy waree ki ma àndal moom laay àndal ba koroog muy am ndam c'est am ndam bu soobee yàlla sama sagal bu waxte dëgg dund bi seer na location seer na ndox seer na courant seer na bépp njiit bi fi mën ci toog li ñu gën a soxla rek Sénégal fii bu la neexee nga toog fi cent ans loolu yow la concerné mais na ceeb yomb di lu ñu yem location yomb ndox yomb loolu bu yombee Sénégal lan mooy problème bi ah pourquoi pas système la rek pétrole am na fi Sénégal lépp am na fi. mais nag euh, ñi politique bi gën a. mais léegi saako ceeb mi ngi si ñaata 25000. saako ceeb mi ngi ci 25000. ñun koy bëgg bëgg bëgg wala Diomaye ñu koy bëgg bëgg bëgg bu ñu toogee tegul si yoon ñu dal si ko am loolu amul sikk mhm. ku fi toog mu am ku mënti doon mhm. da ngay jàppale population bi mhm. parce boo dee ba ne la 200 bu salon 200000 nit ñi fu ñu xanaa loolu boo ko fayee doo lekk xanaa doo naan on a da ngay liggéey weer jël sa 200 dem fay ko location toogaat. wax loolu ay wax la rek suñ njiit dañoo yàgg sonal yàgg ñoo nax yàgg ñoo dóor amu tey doo fekk ñi mu tabax kër mu ne ko da ngay wàññi si location par force te xamoo fu mu jëlee suufar bi tawam loolu ay caaxaan la nañ jàppale askan bi yërëm néew di doole yi néew néew doole ñoo sonn suñu genre yi rek rek rek ñoo sonn mais ñoom buur yi ñoom ñoo alal xamuñ sax ndax courant seer na xamuñ sax ndax saako ceeb na yërëm askan bi. la moo tax suñu doom jël gaal gi dem. su doon ba ñàkk pouvoir. dem ba ñàkk yaakaar. Mm-hmm. nañu dimbali ci yàlla tax. Mm-hmm. cent milliard mm-hmm. ñu nekk man ma yor un milliard. yooyu roo un milliard ba sa gox. Sénégal bu nekk ngay dégg. te milliardaires yi yërëmatuñ ñorul dara. kon fi réew mi jëm te Sénégal ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. nañ jàppalante suralante yàlla tax yëre mënte yàlla tax mm-hmm. lu waaye am koote nga dimbali ko ñu mm-hmm. ngi jëm si koor ñoo xam ni koor dafa metti dépense koor dafa metti ñu yor te mën dimbali nañ dimbali ñun bokkal te mu lay wóor nit mën naa gën a 1 million ndogoo ko la 2 millions léegi 1 million soo ko gënoon tas ko si kër kër go ne ko dugal fa 10 000 10 000 10 000 kër goo dugal 10 000 defaroon ndogom te yàlla tax Sénégal nag ñu ngi jëf gis leen ma man moo tax ma soog Modou Lo barki Seexu Tijaan amul nit kuy dox su ko suuf Sénégal ku dàq su saal Modou Lo amul lu muy def kenn du ko yëg bés ngaa gis Modou Lo di may ñu tal ay kimera Modou Lo li muy jox si ay ginaaru korte hôpital prison yi xaru tabaski kenn xamul li mu toll dégg lu ma la xanaa man duma ni kenn yàlla mi la yoon ñu te gisuma ko sëñ Babacar Sall waatal mu loolu muy def social ma ne xaw ma nit defee noonu hôpital prison yi jumaa yi muy defar te pourtant kenn ko te kenn du ko yëg barki démb rek dëggatu nañ Gàmbi waxtaan lu yàgg sax xam naa sax moom dina fi ñëw fan yi insha allah waaw bu soobee yàlla waaw loolu loolu mooy àdduna parce que nag ñoom mbëri tamit bu ñu fàttali ñu am tey askan bi tax ñu am ko parce que bu fekkee ñoom kese amuñu ñu doon am rek seen koñ ñoo tax ñu am ko parce que tey sa gox mooy takku ba dëgër di jàppale di la pousser pour vers la victoire moom mooy ko dërëm moo jël xasam bi duñ set passe quart dem kon ñoom lu ñu am nañu ko bokk seen supporter muy def waaw Siteu gisoo nu muy def social bu muy def Ada Fass jël ay moto di ko may waa Fass bala nga jàppale kenn ku ne soo jàppalee sa gox mbir avancé waaw maa ngi kontaan baax a baax am na solo macha allah wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax sëñ Mor euh, ndax li faral di wax rek kër gi miin nañ ko ci kër gi la bokk moom it aussi wax dëgg yàlla na nit koo xamante nit ku la nit ku oyof la sëñ Mor taalibe sëriñ Babacar Sy bi ndax nee naa la wax dëgg yàlla bokkul ci ñi ngay woow ñoo xam da ngay jot ñeneen a baax di kontaan ca amul te dañ la fekk sax ci yoon xam nga ñun moom dañ lay taxawal carrément la lii lañ bëgg danga ñu koy defal macha loolu moo lay wane yow suñu nit nga suñu xarit nga te suñu nga bokk ñu ngi lay jaajëf bu baax a baax di la kontaane waaw di sant yàlla rek dinañ yàlla def si réew mi jàmm yàlla meñ ju si koor si bi ma marim génn si alhamdulilah rabbil alamin di sant encore sama yaay bu baax di ñaan sama papa yàlla xare ko àjjana di nuyu samay soxna di nuy encore une fois waa Sénégal ñëpp di baal waat ak ñëpp nag ñun baal nañ ak ñëpp ñun amul droit fayantoo amuñ droit wax lu ñaaw amuñ droit def lu ñaaw képp kuñ tooñ baal na la képp koo xam ne sant nga ni wax na lu la déranger jégal ñu tala rek tax ñu ñu ngi plutôt bal wàll ñëpp ak dox nañu weeru koor damay promotion lépp lu mu naan liggéey liggéey bu mu doon lépp lu ma waaye sant 25 laa ko liggéey bark Cheikh Tidiane promotion la promotion ngay def ni barke sëñ ak lu liggéey bi mën a toll promotion 25 ak lu liggéey bi mën a toll ak lu mënti doon 25 laa ko liggéey ba koor gi jeex waaw lépp lu mën doon rek bépp jàngoro bu waaye mënta am muy feebar muy lépp muy ku rab dugub ku am problème kéet lépp loo dal 25 laa ko liggéey ba koor gi paase ah, amul lii amul yi 25 000 rek lépp 25 000 laa ko liggéey 25 000 ba koor gi paase waaw promotion la ba koor gi paase ñu jàpp si waaw ayca merci beaucoup kontaan nañ ci moom bu baax a baax Aïssa sëñ Mor bàyyi leen xel nag ci li mu wax nee lépp lu mën a liggéey rek 25000 kon daw si lañ ñëw mi ngi fi nga xamante mooy Malika numéro téléphone après dañ ko def ci li nga xamante ne ji wax dëgg yàlla ngërëma yàlla ko ci am ndax sëñ Mor jaajëfal nañ ko bu baax a baax kontaanee ko merci beaucoup jërëjëf macha allah yàlla na fi yàlla bàyyi ba si kanam yàlla defal la ndam defal la jàmm ndax nit ku baax nga ñëw këram ñëwati këram doo ko xam mais moom bokk na ci ñi nga xamante nit ku baax la ñu ngi lay jaajafal bu baax a baax a baax taal bi Serigne Babacar Sy bi kontaan nañ ci yow di béggeewaat nag ñëpp nag ci 8 mars bi bépp jigéen rek ñu ngi lay jaajëfal di la kontaan di wax góorgóorlu rek yàlla baax na incha allah lépp ay baax Aïssa jaajafal naa la kontaan naa sew merci beaucoup di jox ñëpp rendez-vous beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf